Amadou Diaw taskatu xibaar la euh, producteur la Amadou ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. ñu ngi lay fay di la sant bu baax a baax ci invitation bi di ci am kontante di la gërëm aussi bu baax a baax. jërëjëf Chérif aywa ñu soobu ci waxtaan bi gan ngaa ngi noonu. waaw Amadou dañ la xamee nag ci produire ay documentaire ci wàllu justice euh, prétexte invitation bi mooy li commencé démb. jëm ci ay concertation dialogue boo xamante ni bëgg na ay réforme ak modernisation justice yaa ngi tuddee bu ci njëkk justice confession profonde justice carnet secret conseil constitutionnel carnet secret ba ci Ousmane Camara aussi carnet secret d'un juge muy koo xamante ni gis nañ taxawaayam am na yeneen yooyu waajal lu la xiir ci justice ba nga jóg ne da ciy def ay documentaire li ma ci xiir mooy que ne avant de fair des études en journalisme j'ai fait des études de droit te si je me bi ñuy def deuxième année dañ doon def euh, concours plaidoirie nii ma ñëw mu bokk ak ay euh, ay euh, ñu nga xam ne ñoo ma jiitu woon ñu woon ay licence maîtrise ma ñëw ma jël deuxième prix bi donc depuis boobu nag ma commencé di liir di xool di topp ay avocat ñu Maître Sidiki Kaba Ousmane Seye et consort ba ci France ay Jim Garrison ba léegi noonu lan may wooyee am na sama xarit yoo xam ne si Jim Garrison lan may wooyee. Mm-hmm. Jim Garrison moo doon benn procureur la woon euh, en France. Mm-hmm. bu xarañoon moom it quoi sur la peine de mort. Mm-hmm. loolu daal moom ma ci topp et muy domaine aussi bu ma neex quoi à part le journalisme ko mm-hmm. euh, day domaine boo xam tamit euh, ñoom magistrat yi li ñu wax bariwut euh, parce que dafa am li naan obligation de réserve ñu xaw a maandu mm-hmm. mais gis nañ na yow nga tijj ñu tijjil la say buntan doki <laughs> document yi bari na lu lu tax loolu ñu ñoom ñu juge nécessaire wax gis nañ ci ay procès yoo xamante jàll na ñu jël ñoom décision di ci àddu ay tuuma yi nga xamante ñu ngi leen ko doon teg seen ko waaw xam nga magistrat yi. Mm-hmm. dañu am li ñuy wax obligation de réserve. du pratiquement journaliste yi leen di interview jafe na lool. quasiment c'est très ko quoi. man mm-hmm. ah ci li ma jàpp confiance bi ñu am ci man nii mooy rapport yi ma am ak ñoom daal. Mm-hmm. maanaam lépp li nga xam ne ni si dama leen koy dama koy wax ak ñoom dama koy def. te jàpp nañ ne aussi bu nu ma waxee lii mënuñu mënuma wëlbatiku mukk ba soppi leen wax. Mm-hmm. am na ñoo xam si nag dama leen di suivre dama doon xool seen décision yi doon rendre ñëw di leen laaj ñu ma koy expliquer yaakaar naa ne am na ci benn président cour suprême bu ma mos a woo ndeysaan mm-hmm. ne ma secrétaire am ma suba teel ne président day génn léegi nee na boo bëggee ñëw boo mënee ñëw dans trente minutes ma jóg illico presque dem seeti ko. laaj naa ko li ma ko war a laaj yëpp ñu waxtaan mu defal ma témoignage bi ma bëggoon bi mu paree ma laaj ko ay question ci yoo xam si c'était des questions actuelles yoo xam si mhm. presse bi ñu ngi koy agité ñun ndekk ñun liñ doon wax lépp ci presse bi ba ma indilee décision yi wan kii yooyu yëpp dara dara dara dara ci liñ ci doon wax mhm. mu génn foofu nag sama xol bi métti loolu daal parce que yenn saa yi di nga gis ñu teg tuuma ay accusation wala tel tel relaté ko dans la presse ñoom duñ mën a tontu ñoom duñ mën a tontu obligation de réserve la na mhm. parce que ce qui se fait dans les cabinets d'instruction est couvert du manteau de la confidentialité mhm. nit ki waruloo dem nii rek def dara ñu woo la police enquête la nga xëy gis lépp ci presse bi yooyu day am malheureusement waaw ñun presse comme yow mi xam nga am nga say buntu yooyu jaar mhm. ba jot procès verbal bi mais normalement loolu war ko am quoi souvent nag da gis ku ñëw sax signé procès verbal boo xam si xamu ci dara mu xëy gis boppam ci biir presse bi ñu koy accuser lu nekk lu nekk lu nekk ñu nekk fekk loolu lépp amu ci boo xoolee. Mhm. loolu lépp ci. loolu daal moom mu ci gënoon. moo la gën a kii léegi nga réaliser bi naan confession profonde loolu dafa mel ni kon. ñoom acteurs yi rawatina magistrat yooyu ak ndomba tànk yi am. Mhm. ñooy wax xëy na génn li nekk seen dënn seen xol. waaw pratiquement boo xoolee benn film boobu confession profonde. Euh, euh, ñoom ku muy doon juge euh, Cheikh Ba ku muy doon Maguette Diop juge Maguette Diop ku muy doon juge Demba Kandji ñëpp dañuy wax li nga xam ne ni si ñu ngi koy gis di ko yëg ci société bi parce que société bi dañu jàpp daan ne juge bi dalay xool boppam neexul sa bopp neexu ko wala sa taxawaay rek mu condamné la wala dañuy jàpp daan mën nga génne tey xaalis bu bëri jox ko benn juge nga def tooxi dooni ñëw mu libéré la mhm. te fekk loolu mënut nekk mhm. parce que ñoom bu ñu jëlee décision ci yow dañ koy articuler dafa am benn këyit bu ñuy bind mooy décision boobu motiver ko waaw motiver ko këyit boobu nag yow mii même boo ko liiree sax bu dee c'est pas cohérent da ngay xam ne ni kii li muy wax taxawul parce que mën nañ wax ne ne ah crime bi am fii de Chérif Dia ko exemple moom lañ ko tuumal mhm. gis nañ ne waxtu wi muy am bis bi mu am Chérif Dia nga woon Tambacounda mhm. mission la fa nekkoon ñu ne gis nañ ne am na koo xam ne ne si certifié na ma nga woon foofa ci benn réunion gis nañ ordre de mission bi ko mhm. euh, service am jox mu dem donc lépp mi ngi wone ne mi ngi woon Tamba bés boobu mhm. donc crime bii am fii dakaar ci waxtu wii bi nga xam il est censé se trouver à euh, Tamba crime bii ñu ko takkal mm. du moom nun la ñuy articuler décision biñ gisee loolu lépp nag dañ koo raxas ba set wecc bàyyi ko mu dem mm-hmm. loolu boo ko liiree rek day cohérent ci sa démarche mais nit ñi duñ jàpp loolu souvent dañuy jàpp daal ne condamné ma ne ma parce que bon souvent sax. les gens s'émeuvent que des questions. mais loolu xam nga parfois ñu mënoon koo xam. est ce que yow ak li nga dund mooy li ñu ni ci ay documentaire c' est am nañ confiance ci yow ba tax na ñu confié wu. laajul ci réforme yi ñu war a indi ci justice aussi. ñu xalaat on parlait de communication sànq ak kii jàngat. ñoom it ñu mën a bàyyi liberté boo xam ne yenn saa ñu ñuy leeral askan wi di xam li xew. waaw xam nga nag les gens ne s'émeuvent que par exemple longue yi. les gens ne s'en émeuvent que lorsqu'il s'agit des questions politiques euh, des leaders politiques mais am na ñoo xam si ña nga rëbës tëdd pendant quatre ans kenn jugé wu mhm. mais kenn waxu ci dara mhm. man gis naa ko xam si def na rëbës onze ans hmm? onze ans jugé wuñ ko te pourtant boo jëloon benn secretaire général parti wala benn gaañ bu siiw nii nekk ci parti politique yi mhm. tëj ko wala convoqué eh, rek eh. wala convoqué donc ñu la parfois am na ñoo xam ne dañ leen di def détention préventive plusieurs années. après ñu àtte leen defal leen non-lieu. loolu day am. xam nga lu koy waral. Mm-hmm. détention préventive yi juge bi souvent day xool day demander danaan médecin bi kaay xoolal ma ndax empreinte am mi ngi fii médecin boobu bu yéexee répondre mm-hmm. juge bi du hmm. mu woo keneen. laaj ko parce que les juges aussi ne sont pas experts mooy technicien mooy mooy mmh. yi mmh. police scientifique par mmh, exemple mais même loolu sax ah jàpp na ne bu la téye quarante huit heures bu dajalewut indi si nga xam ne ni si yëpp soxla na ko te xool na ne yow tu ne constitues pas une menace pour les autres daf la war a bàyyi ba nga dem ba mu soxla la mu woowaat la nga ñëw mais waru la mën a téye ci biir kaso pendant ay at te sax les en matière criminelle la détention ne peut pas excéder six mois en matière criminelle laa la wax. Mm-hmm. or même en correctionnel ak yeneen affaire civile yi da ngay gis suñu téye ci nit. ñu yàgg xam lu koy waral. Mm-hmm. man toog naa benn bis ma woo sama benn xarit juge ay 22 heures mu ne ma man de wàccaguma ma nii fekk ñu ko invi euh, euh, affecté woon wetu Ziguinchor mun ne ma wàccagul lu tax mu ne ma day xool dossier bi lay xool quoi xam nga lan la. sa dossier yow benn këyit la rek ah, bu nu lem nii ah, bind ci affaire opposant Chérif Dia à tel tel tel teg teg bu nu defee mandat de dépôt teg fële léegi nit ki buy xool këyit bi rek lay gis du gis nit ki. gis nit ki d'accord léegi moom def na ma bis boobu def na ma dafa xool kay dossier yëpp di xool dañ ne ah kii de def na fi 6 mois de lii ëpp na de kii def na fi 1 an ëpp na de ki tel tel tel tel yooyu yëpp mu koy dajale. ne ma guddi gi yëpp dafa nekk biroom di dajale dossier yooyu pour bu xëyee. Mhm. mën a demander seen liberté seen libération. wala ordonner. seen libération des fois sax kayit yi réer ah ci ci circuit yi parce que archivage bi mais dama ñëwaat ci mbirum communication parce que réew yu jëm kanam yëpp gis nañ. Mhm. fii parce que procureur itam li ñu fi ne moom yenn yi def euh, conférence de presse conférence de presse yi procureur yi def yëpp c'est parce que dafa laal ab nitu politique ñoom li ñu wax naan dañ koy jiñ politicien aussi dañ koy def alors que citoyen on parle de disparition comme cas bi Malick Diouf ay France ak jàkkaarloog euh, taskatu xabaar yi leeral ci li nga xamante ni mooy dossier bi fi mu mën a toll loolu est-ce que waruñ faa egg Sénégal ci réforme yooyu justement mais réforme yi amul dara luñ ci mën a wax tey jii loo xam si waxuñu ko woon ci rapport 2018 bi loolu lépp bind nañ ko ci problème bi mooy lan le problème est plus lié à l'homo sénégalensis da dangay gis koo xam si dafa am njabootam am fiyam ñu taqal ko tuumaal ko téye ko kenn du ci wax dara gaa yi fàttali rëbës mhm. ci benn parti la bokk am na tur leader mouvement jeune la wala secrétaire général femme la. Hmm. wala tel tel war a nekk mën na ministre ñu ne affaire politique la ngay toog pendant un mois wala trois mois da koy gis ci presse hmm. bu parti bi génnee dénoncé gars yi porte ko en copie. Hmm. bu kenn ci responsable yi ñëwee ci télé yi wax si di reprendre ko. défendre ko ah def son plaidoyer alors que nous tous. égaux devant la justice et nous sommes tous d'égale dignité loolu mu am loolu nag ci ñun la sénégalais c'est-à-dire que on préfère s'appesantir sur les questions moins essentielles que sur les sur, sur, que, que sur les uh-huh. loolu ci ñun la bay voilà euh, monsieur Diaw euh, en tant que producteur j'imagine ko xam naa ni sooy tourner ay euh, film sax dina am image yoo xamante dina la xaw a manqué muy euh, audience waaw parce que fii Sénégal c'est très rare naan procès Habré bi euh, amoon na fi ñu koy filmer ça se fait peut-être dans d'autres pays mais fii ça ne se fait pas mais loolu est-ce que quelque part euh, andiwul mythe boo xamee ni day tax askan wi xam exactement comment se fait le travail mm-hmm. juge yi ni ñuy liggéey shérif mi ngi lay wax ni léegi ni que li ñuy wax bariwul du ñuy dégg seeni kàddu du ñuy expliquer da ngay ñëw rek ñu wax la fii Sénégal fii tey jii sax Euh, am na genre procès yoo xamee ni soo koy suivre via euh, des personnes am na ñoo xam ni ci réseaux sociaux la ñuy nekk di euh, reporter mhm. ñi nekk ci ay euh, médias presse en ligne di reporter kii lu muy bind ak kële lu muy bind c'est diamétralement opposé <laughs> alors que si tu avais la possibilité de suivre ça en direct yow di nga xam exactement ce qui se passe nga xam aussi juge bi yow di ko mën a jugeel sa bopp sax xam moom lu muy tranché lu muy tranché loolu lu am la parce que en France quel que soit le procès le président de la cour day toog ngay toog ñu ne la cour ñëpp toog président bi moo naan euh, messieurs mesdames les journalistes les reporters de presse je vous accorde trois minutes pour prendre vos images hmm. yéen ñëpp ngeen taxaw filmer cour bi filme spectacle yi filmer yëpp quoi par contre débat yi lëndul filmer mais fii dañ la dul may sax nga génnee eh, caméra eh, booy génneel booy génnee caméra ñu lay jël dugal ci kii bi dem yóbbu garde à vue fii ki lay accueillir rek la mais la justice mm-hmm, mais c'est un pouvoir comme le pouvoir législatif n'est-ce mm-hmm. député yi lenn rek la leen ëppale ñoom immunité parlementaire la nam mais député yi jëlu ñu mit boobu teg ko seen kaw mm, wër leen ko seen kaw mais fii boo demee tribunal Mhm. magistrat yi sol seen robe noire yi rouge yi avocat yi sol robe noire yi booy dugg tribunal police doo xam sax fan nga jëm policiers yi da nga leen di ragal sax laaj c'est intimidant te loolu lépp c'est mhm. voilà c'est le mot qu'il faut c'est intimidant alors que la justice est rendue au nom et pour le compte du boo xam dañu orienté sax les usagers naan lan fii audience bi nga am sa mbokk fan lañ koy attee nga xam ko oui mu nga wala sax bu buñ paree buñ rendre décision bi waxuma la kii euh, sa avocat mais am ko la ko mën a teg tekkil waxal la ko lu leer parce que avocat bi plusieurs dossiers la am mun a nekk tey di la expliquer lii ak laa ñu koy woo te pro beneen procès bu mu war a défendre commencé na donc mythe boobu entouré justice bi mythe boobu lañu war a dindi teg fale te ñoom il me semble que ne bëgguñu ko parce que problème boo xoolee conseil supérieur de la magistrature ñoom loonu wax ñu ci bëgg nit ñu ci bëri dañ naan bëgguñu président mmh. présider ko au nom pour lan c'est un pouvoir comme le pouvoir législatif comme le pouvoir exécutif. Mhm. président pour gouvernement pour mu défendre budget am lu muy def. Mhm. day dem assemblée day dem assemblée te am na ministre chargé des relations ak les institutions. buy dem foofu ci mais parquet au moins ñu am koo xam si un porte parole boo xamee ne si sur les questions essentielles au moins ñu tax wax ak. di leeral nit ñi donc ñun ñoo contribuer en tout cas fii au Sénégal. Mhm. et ça je le dis le répète c'est lié à l'homo sénégalensis c'est-à-dire dañuy jël benn mbir complexifier ko boole teg ñoom euh, kii ko nu mu tudd mythifier ko. de sorte que tëju danoo tëju. tëju tijjee ko waaw boo leen ñemee sax jege. Ah, tamit boobu noonu noonu na nekk sax wàllu sensibilisation jëm ci ñu nga xam ne mosuñoo amalante ak wàllu yoon. ay mën na nekk genre sensibiliser askan wi ñu xam bu baax a baax li ñuy def ñu teg seen tànk ak information yi war. pour ñu xam ko mais tout à fait par exemple boo dugg see tribunal Lat war nga mën a gis benn tableau. buñ bind ah procès tel tel opposant tel tel tel mhm. chambre tel nga jëw jubal directement mais tableau bi dañ ko fa def sax yow da ngay da ngay yaakaar ne sax boo jegee tableau bi ñu tëj la mhm. da ngay gis ku nekk di wër di wër di wër da waaw dañoo dañoo ragal tribunal quand même tribunal quand même ñu ngi def loolu tribunal ñu ngi def loolu ñu ngi def loolu non mais même tableau bi nga xam ne si pi leen bind kii am na ñoo xam si dañuy jógee ci région yi ñëw waaw mm. mënuñu ko lire xamuñu ko pourquoi pas ñu wul nii nii recrutement pour recrutement bind des guides du justiciable koo xam si boo ñëwee da lay accueillir fan nga am nga ne ah man de dama am procès diw diw diw diw ñu indi la ci tabi xool daane ban chambre la yóbbu la ne la toogal fële parce que avocat bi mënut ko def loolu lépp avocat yi ci biir saal bi lay nekk buñ la paree mu expliquer la yóbbu la mais gis nga tribunal boo fa demee tu as l'impression que ne tey da nga naan boo fay génn daal man yaakaar naa da nga naan man de lu ma mën boo seetaanee un procès yi dem ba 22 heures là-bas. Mhm. da nga naan man de lu ma mënti woon def ci jub. Mhm. dinaa ko dolliwaat. Mhm. parce que fii. c'est fu jar a dem la mon frère beneen bi nga xam ne moo ci des mooy euh, euh, taskatu xibaar bi nga xam ne dafa euh, jàpp ni moom spécialiste la ci affaire judiciaire am na lu mu warloo ci wàllu background ci wàllu xam-xam pour le traitement de l'information judiciaire dafa dafa am lu mu laaj bëri na ay compte rendu yi nga xam ne souvent dafay tronqué parce que ki koy traité xëy na euh, amul euh, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir rendre l'information jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo dans l'équilibre waaw loolu nag ci wàllu rédaction yi la wax dëgg fa yàlla ndax man mii tey ba may reporter boo ma yóbboo match football wallaahi di nga ko rëcc parce que dara laa ci xamul man du ma seetaan sax match coupe du monde boo ma joxoon paas na ma demal sax du ma ko seet du ma dem parce que ko seetaan mënu ci bind ñaari ligne économie boo ma ci dugalee timit naan ma defal reportage wala tel tel interview dara laa ci dul def parce que dama ci xamul dara parce que nit aussi mënoo nekk spécialiste spécialisé mais bon maintenant nag di nga gis ci réseau yi ku jël bon ay ñoo xam si waxuma la sax juste mais defuñu sax le quart de ce qu'il faut pour am background pour parler des questions judiciaires mm-hmm. le quart amuñu ko mënuñu laa wax lan mooy projet de loi mënuñu laa wax lan mooy proposition de loi quelle est la différence entre projet de loi et une proposition de loi cour bi lan la cour d'appel cour de cassation lan la cour suprême lan lay juger première chambre correctionnelle deuxième chambre substitut mooy lan loolu lépp te yooyu yëpp c'est des mais mais jargon bi c'est un peu spécial quand jargon boobu aussi boo ci duggoo. boo xam ko waaw boo ci duggee. ci lu bari boo ci duggee. seen euh, sama xarit boobu. Chérif daal na fi formation bi waaw mm-hmm. boo ci duggee. di nga ko xam boo defee par exemple bërki dem affaire Doro Gaye bi am na journal bu bind ne dañ ko placer sous mandat de dépôt à la section de recherche <laughs> xam nga loolu <laughs> waaw xam nga loolu journaliste qui écrit woo garde à vue ak mandat de dépôt voilà donc mooy li nga wax spécialisation te gis nañ quand même liggéey bu am solo boo xamante ne journal observateur daana def muy lexique yi nga xamante daaw de min sa moo lu am solo la nit ñi di xam lexique yi maanaam terme juridique yi ngir booy bind nga bañ cee bañ cee jóom ñoom ñu ngi def lu am solo ak chroniqueur judiciaire yi quoi mais nag xam nga daaw doon nag dafa war a continuer di gën a ñëw di gën a éclater mm-hmm. waaw mi ngi koy def ah bu koy continuer gën di def mm-hmm. parce que wax wax naa parce loo xam ne Euh, les kii là comment s'appelle le CORED sax wala la association des rapporteurs bu ko demandé woon. Mhm. nga gis tey le parquet wala le ministère de la justice jël euh, deux juges deux magistrats wala deux avocats. Mhm. ne leen damaa bëgg pour trois jours yi ngeen formel ma ñii. ñu def ko mhm. les gens ne font pas pour comprendre. Sénégal du def effort pour comprendre dañuy dégg tëll dama mais ñi retraité aussi même euh, ba léegi maa ngi ci magistrat ñi dem retraité est-ce que soxlawut des fois ñoom xam ne affaire réserve moom soxlawut ñëw ñoom leen nit ñi soxlaa ci plateau yi wala ci lenn ñu ñëw di leeral nit ñi ci justice bi ni mu doxee waaw mais ñi retraité ñu ci bëri aussi gars yi xamuñu leen ah. man je pense que ne xaw nan laa defoon ba xamanteeg euh, Pa Ousmane Camara. waaw boo bokk nga ci ñi nga ko consacré. moom daf may wax loo xam ne ni si temps Abdou Diouf la. ak Senghor moom la commencé. temps Abdou Diouf Senghor te dina la ci xamal. lu bari événement 62 yi moom lim ci mën a wax fii ci Sénégal par mais lu bari te danaan la. Mhm. man toog naa policier arrêté ma bëgg ma fayloo ma lànk ma ne ko damay dem fay fële mu ne ma joxeel dara. ma bàyyi la nga dem ma ne ko déedéet dama def infraction boo ne ma demal toog ci ci naaj bi ma toog ci naaj bi ba 18 heures boo ne ma demal jonkan fële toog ma def ko parce que kii bi nga takk tenue bi nga sol moom laa respecté mais du ma génne mukk sama xaalis di la jox mu ne ma dama lay immobiliser ma ne ko d'accord ba muy muy man dama woo sama benn xarit bind dama passé une nuit entière du bind une plainte pour loolu pour loolu mais rëcc na outrage magistrat dama yomb na leen ko fiy toppee nit ñi aussi loolu xanaa ci réforme war ko mën a définir ñu xam luy outrage parce que il faut ñuy critiquer justice aussi ni muy doxee ah waaw outrage euh, magistrat boo ko déggee mooy souvent rek wax waxloo magistrat lu mu waxut walla bind ne tey lii outrage magistrat am na ah. yenn saa yi moom kay. Ousmane Camara nee na ma toog na benn benn ba muy nekk président cour suprême. nee na ma bi mu nekk président cour suprême am na benn greffier bu defoon des malversations sur les fonds là. Mm-hmm. mais xam nga lu presse bi bind. suprême la tontine des juges. Mm-hmm. wane benn photo boo xam si boo ko xoolee noppee rek nga ne kii Ousmane Camara. imagine tey kaay ñu ñëw observateur daan observateur la tontine des. Mm-hmm. directeur directeurs. ñu la ci def sa photo. Oh, ma kii génn fii ñu ne ah. sa waay Chérif comme dafa dafa tibb ci xaalis beeg yooyu. loolu outrage la. loolu day am souvent da ngay gis ñu ne way magistrat bi wala ñu ne la tel magistrat a été corrompu or jamono ji ñu toll fii il est difficile de ni c'est pas que ni ngay joxe xaalis nii ay policiers ñeneen ci mbedd mi nga koy joxe magistrat c'est pas possible parce que kii xaalis boo ko mënta jox décision bu mun ti jël aussi da koy motiver da koy bind te bu ko bindee yow mii rek bu nu la ko joxee boo ko liiree da nga naan lii jaarut yoon. Ah, man man ma nekk magistrat nga jox ma xaalis tey dem. Mm. jox ma cinquante millions ne ma libéral sa waay. Mm. lu mu ti bind tamit ku ko liir dina xam ne ni jaw bii de. Mm. décision bii mu jël am na lu tax quoi. am na lu ko soññ mais c'est pas le droit quoi. suñ fi tudd justice ci ëpp dafay seen relation ak politique yi. lay faral di euh, doon ba tax na démb fële ca ndaje ba am na benn lexique bi Chérif doon wax bu fa bu ñu fay dégg muy le gouvernement des juges euh, nit ñi nag loolu lañu bëgg ñëw dakkal ko mais réew mu mel ni Sénégal est-ce que politique yi son assez responsables assez matures ba ñu bàyyi leen seen i bopp ba yenn si seen i këréel yi seen jafe-jafe yi mu bañ a yegg ca yoon mais bu deful lànk fi ñu jëm nii mooy instaurer une république des juges ah. kenn mënu ci dara nii appliquer proposition yi nekkoon ci réforme 2018 bi. Mhm. ce sera un gouvernement des juges. mooy lan par exemple euh, euh, nu mu tuddati yow sa élément yi génn sa journal bi mais da nga ciy déggoog ñëpp ku nekk da koy xool reporter bi mooy dem ñëw mhm. indi nga xool correcteur bi xool ah ñu xool baax na am déet ñu jàllale nest mhm. mais bu ne conseil supérieur de la magistrature magistrat yi kese la ñoom ñooy décider. ñoom ñooy décider ne kii nañ ko yóbbu fii kii nañ ko yóbbu fii kii nañ ko yóbbu président du fa nekk premier ministre du fa nekk ministre de la justice du fa nekk dañuy ñëw rek appliquer loolu mooy d'abord premier pas vers un gouvernement des juges mm-hmm. te loolu warut a mën a am fii mm-hmm. boo demee diw am na des critères yow boo defee dix ans war nga mën a nekk chef de juridiction très bien wala yow tel tel tel temps d'expérience boo ko amee ak mm. profil bi mérité nga tel tel tel ñu mettre la en compétition ak tel te bu boobaa le président ou le ministre de la justice peut trancher pour voir daal kii de jaww mii de kii ko ëpp compétence kii ko ëpp expérience te moo ko ci njëkk aussi donc moom moo ko yelloo jërëjëf mais ñu jox ko ñu jox ko jërëjëf merci beaucoup donc am na am na yooyu waajal yaa ngi euh, beneen bi yaa ngi ko tuddee Jacob le messie de la fac droit Jacob mooy Isaac Yankhoba Ndiaye waaw Jacob moom dama koy rendre hommage foofu ñaar d'ailleurs ah. Jacob ak Omar Pène Omar Pène la damay def moom it benn carnet secret sur moom Omar mu jaar texte yi muy wéy ak yooyu mm-hmm. la muy wax ak euh, toolu Baye Demba wujj yaay euh, étudiant immigration clatine boo gisee la mu doon wéy loolu lépp démb tey moom la ñuy gis fii tey. Mm-hmm. yu ci bëri yu gars yi mënut a comprendre yoo xam si. Mm-hmm. ku mu la ko tegalee c'est l'ami la étudiants. waaw c'est l'ami des étudiants beneen bi ah c'est Isaac Yankoba Ndiaye c'est le messie de la fac de droit. parce que ku jaar fac de droit. te amuloo admiration. ci Japon léegi Kamba Kale moom da nga ko fiy bàyyi. Ah. ah ñun après ñu jox ko directeur programme TFM ñuy teg kaane sa kër yi moom. incha allah nga may ñu ko incha <laughs> <laughs> waaw euh, benn moo rek ma euh, nuyu sama patron bi Serigne Boub. waaw acca nuyu la. waaw mooy sa patron. waaw waaw moom ad vitam naam quoi. waaw mm-hmm. man même bu ma nekkee sama yëfi bopp aussi moom suma patron la parce que bu ma bloqué wu ci moom laay dem ah, bu ma soxlaa dara ci moom laay dem aussi loolu aussi ah. gars yi war nañ ko xam aussi quoi man la ma xalaat juddoo waaye jolof jolof laa waaw ngaay ma xalaat juddoo jolof jolof laa mais nag ngaay moo neex ngaay mi may bëgg a nangu sax ci waa jolof mm. bu nekk ma dem nga sànq jolof ah? na la bu yàgg mooy gaay jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Amadou. ñu nuyu waa Kajoor yëpp jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Euh, Chérif na tey moom nekk na fi sax réalisateur parce que sànq ba léegi lu fi teg ci eh, télé bi moom moo toog ci plateau bëgg ko corriger te bu machine bi fayee munu koo taal vieux yàlla na la yàlla may xolu muñ. Chérif bàyyiwul kenn ñaar léegi léegi ñaari yenn kaay ko ku Futurs Médias muy l'observateur ak record